mooy ñu sant Muhammad nag mooy koo xam ne fu mu toll ñu ngi koy sant maanaam lépp ma sant maanaam ni nekkee nit ku santu wala ku cantu dafa ëpp waaw fekkoon ne nit dana def loo xam ne dañ koo war a sant sant bu ëpp ñu ne yonantu la sallallahu alayhi wa sallam loolay Muhammad ala wazni mufaal nga xam ne jëf ji dafay répété wu loolu taxaw mukk mu wax nañ ne bi mu amee ñaari weer ci biiru ndey aminatu la bàyyam faatu abdullahi aminatu bi nga xamee ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam juddu na nee na fi mu toog ci makk ñu ngi koy wan dégg nga dëkk ya nga xam ne ñu ngi ca Busra fi mu toog makk xale ya nekk Kaysar xale ya xale ya nekk xale xale Kaysar ya nekk Rum ñu ngi ko koy wan loolu mooy wane ne leer gi fii la jollee waaye dana daj àdduna yëpp loolu yëpp nag mu ngi xewoon ci guddi gi xam nga yonentu sallallahu alayhi dañuy wax guddi gim judd nitu yàlla yi nag dañuy wax ni yonentu judduwul ci guddi judduwul ci bëccëg wala sax neel borom xam-xam yi am taxaqquq yonent mi ngi juddu ci njël wa asxaari hum yastaxfiruun njël guddi gaa ngi jeex bëccëg gi mu ngi tàmbali lëndëma tut kurus waaye leeragut tamit nàññi ñu ne yonentu sallallahu alayhi wa bu juddu woon guddi guddi reer fatlatul iman bismillah bu bismillah xaadim Buso ci limaanu suñu bokk yu baax yee ci Amérique yu Islamic Community mika macha allah léegi nag dafa mel ni xalatul waa Amérique <laughs> yu bi nekk Dakar daal dafa mel ni gën a bari macha allah ñëw taalal jotaay ñu ne yonentu sallallahu alayhi su judd woon bëccëg bëccëg dana guddi su juddu woon guddi guddi dana ree bëccëg moo tax mu juddu jël tëj bi zalika sax loolu ma ngay wane mandoom moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yonentu nag yàlla dafa wane ak faram ci moom ba dara luy topp liir buy juddu topput ko sallallahu alayhi wa sallam lu muy juddu fekk na lu ñuy defal liir yëpp defal nañ ko set wëcc ci biir ak ci biti alayhi salaatu wassalaam day aminatu nàmpal ko suway bëtu di jéebéeru abu lahab nàmpal ko wax nañ ne sax nàmpal ga ko suway bëtu nàmpal ak bégal ga mu bégal abu lahab ne ko sa doomi mbokk mi sa Euh, soxnaay mbokk mi am na doom ñu ne Abu Lahab dafa bëgg boobu ba goreel ko ñu ne looloo tax sax ajjum altine ju nekk sama borom dafay woyofal mbugalam Abu Lahab mi nga xam ne moo gënoon a bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ci yonent bi tax ñuy woyofal mbugalam ba su altine gi yonent bi juddoo kon ñun ay jullit suñu dajaloo ngir bëgg ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam war nañoo gën a am yaakaar war nañoo gën a am yaakaar gën a am yaakaar moo imaam Busiri rahmatullah alayhi bi mu koy woy ca biir woy wa mu ne ko walan yadiqa rasulallahi jaahuka bi idal karimu tajalla bismi muntaqim bés bu sama borom bu tedd bi gis nga Busiri ni muy woyee bés bu yàlla mu karim bi xam nga nitu yàlla yi su waxoon muntaqim rek te njëkkeewul alkarim yu seey ci ragal waaye mu wax ne bu yàlla mu baax mi solo solee mbuboom fayu mi xam nga yàlla bés dana ñëw mbuboom fayu lay sol mu yomal qiyaamati waaye mbuboom fayu bi mu al muntaqim lu tax mu summi mbuboom tedd bi lu tax mu summi mbuboom aji tedd ji mu ne nag yow yonantu bés bu yàlla solee mbuboom al muntaqim man bu keroogee sa sa daraja xatul ci man de sa daraja ju tedd ju màgg ji xatul ci man walan yadiqa rasulallahi jaaruka bi idal karimu tajalla bismi muntaqim bu dem sax ba ne yaa nafsu laa taqnati min rahmatin azumat inna alkabaira fi lgufrani kallahu laalla rahmata rabbi xiina yaqsimuha taati ala xasabi alcisyani fi lqasam yow sama bakkan xam naa ne li nga def rëy na waaye bul naagu ndax yàlla muy baale ni bakkaar yu mag ni bakkaar yu ndaw yi yombee ci moom mu bale baale leen noonu la bakkaar yu mag yi yombee ci moom mu ne sax xëy na sax yàlla buy jéggale bismillah aleykum salaam wa rahmatullah mu ne sama boroom sax imaam xëy na buy baale dafay seet ni bàkkaar yi mel mu ne noonu lay séddalee yërmandeem c'est-à-dire yàlla baax na ba mën naa fekk ku mel ni man def tonu wala dégg àddunaay bàkkaar mu ne man am naa yaakaar ne su may baal dafay fekk sama àddunaay bàkkaar yooyu yëpp mu soppil ma ko àddunaay xasanaat laalla rahmata rabbi xiina yaqsimuha tati